أخمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فأمد صدر العلوم نافعات أفجمت لم ينني شك ولا توقم ولسوى قلبي ينقل وقم قلبي يسنه الجميل عن قبيح وليقود نور في مال يبي علمني من لوقي والقلم من يقود علم ما لم أعلم زلم نفسه الذي عداني لأنه البارس من عداني يعصمني الباقي من الأقدار في دار دنيا وتلك الدار مع النبي الملتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنوري من زن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر من زن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر أدر والنفع من رحمانه ليس من البلدان والسودان أدر ونو من الرحمن من الرحمن أدر ونو من الرحمن ليس من البلدان والسودان أدر ونو من الجبار ليس من الفجار والأبرار أدر ونو من الوخاب ليس من الأعداء والأحباب بسم الله الرحمن الرحيم كف يا عين صاد كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أخواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما أخواه يسر لي العسر كما أخواه يسر لي العسر كما أخواه بسر لا إله إلا الله وعلى نبي المصطفى على نبي المصطفى على نبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا الله صلاة بسلام الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا والسلام في الآخرة والسلام في مكاننا والسلام في مكانتنا والسلام si bàyyam bu tedd ba alxaaji mam bu fii Cheikh malik toog euh, fi la toogoon moom mu toog fii euh, yaakaar naa ni keroog bi seexal Alassane di ñëw Ndiassane bi mu toogee ci salle bi la fii de yaakaar naa ni miin na ko euh, ci toogaay bi bu bërki dem rek ci gàmmu Tiwaawoon mook sëñ Amet fii ñu toog la fi def benn poème poyom boo xam ni poème bu gaaw waaw bi ko sëñ Amet liiree rek moom daal am na ak jaaxle goo xam ni loolu nag euh, ndimbalu yàlla la euh, sëriñ bi euh, délégation baa ngi nii toog muy délégation président Cheikh Alassane wax na ni bu ñu yegsee ñu santal ko soxna su ci taxawaayam waaye itam ci engagement am waaye ci ne gi mu nekk ci wetam waaye ci doon conseiller mi tam ci taxawu ko ci biir waaye taxawu ko itam ci biti nga xam ni bàyyiwu ko benn yoon ci lii nga xam ni président Cheikh Alassane euh, engagé wu na nga xam ni mille 2024 dafa samp ndëndëm euh, ngir jëm ci élection yi nga xam ni mooy présidentielle nga xam ni laataa loolu lu ko jiitu euh, fekkoon na lépp loo xam ni rek nekk na ci lu mu ci def rek da ciy waxtaan ak soxna si te lépp loo xam ni tamit jàpp na ko te soxna si mu xool ni loolu moom arrangé wu ko bu ne bu soxna su ne bàyyil nee na ci bàyyi te du ci am lu mu ci xool kon moom soxna si président Cheikh Alassane teg na ko foo xam ni euh, teguwaay woo xam ni teguwaay wu kawe la moo tax mu yabal euh, ñi nga xam ni ñoo bokk ci staff nga xam ni fu muy dem ci biir réew mi ñoom lay àndal euh, yi muy def yëpp ñoom la ci àndal mu ni nañu ñëw jiitu si indi teraanga jooju nga xam ni indi na ko muy nag yu am solo yooyu nga xam ni dàq na ko mu ñëw ngir nag barkeeloo ko ci guddi gi nga xam ni guddi gi yonent bi la te moom mu am cofe loolu ci yonent bi ba ñaari doomam yu jigéen yi mu am yonent bi la leen tuddee alayhi salaatu wasalaam nga xam ne bind na ci yonent bi quatre mille et quelques yoo xam ni jagleel ko ko bind ko ci mag ñi fi nekk itam ah, mu ni daal nañu ko fi teewal waaye bu samdee incha allahu rabbi dana ñëw ci gàmm gi ànd ak moom bis bi ah, ànd ak moom itam jotaay bi ba ah, Sénégal gépp xam ni soxna asu jigéenam la soxna su xaritam la waaye soxna as itam soppeem la euh, lii mu def nag xeeb na ndax euh, wax nañ ni euh, day bañ a def loo xam ni ndax fi ne ni moom coow li daa tàmbalee bari waaw moo tax ñu xaw koo yemale nii tuuti rek waaw diraam nànk-nànk rek waaw te xam ni incha allahu rabbi bu soobee yàlla gàmm gi dana ko fas yéene ànd ak moom ànd ak moom ci lépp nee na mu ngi koy sant mu ngi koy ñaanal Cheikh Malick nii moo waroon a yëkkati kaddu waaye moom nee na ñun daal mate nañu ko noonu ku ko yëkkati waaye sant ko itam ci teraanga ji nga xam ni mu ngi koy euh, mu ngi mu ngi tàb jóge ci soxna su jëm si ci moom euh, keroog euh, bi mu ko joxe ay yére ci guddi gi la ma seexal sànni ma man daal dama laa naroon a jox benn jox benn Abdourahman joxoo ma kan beneen waaye ma xool yére daal ma ne ah yii daal moom soxna see ma ko jox daal naa ko sol daan ni ma nag teggi ci sa bët nag teggi ci sa bët nag ma ne ko yii moom ma ne ma yii moom dama koy sol waaye gis ngeen lii Seex Malick sox soxna see ko jox nga xam ni daf ni bu may ñëw daal teraanga ji ma soxna si jox dama koy sol indaale ko ngir moom cofeel gu ma am ci moom moom mi Cheikh Malick bis mu nekk ak Cheikh Albunaama ak sëñ Mansour ak ñoom Assane ñun dañuy toog di jëw soxna kenn ku ci nekk daal bu waxee ba bàyyi la addoro dañu koy ñaanal suñu borom dëgëral ko waxuma président Cheikh Alassane waaye ñi ak moom ñëpp am ci yow yéene ñoom ñii bu soñoon kenn ku ci nekk day dàq nag ba nga xam ni daal ñoom ñëpp ñu am ci yow cofeel lii mooy kaddu yi nga xam ni nee naa dana ko résumé mu jëm ci sëñ Ahmed waaye ñii nga dendal itam muy muy muy Cheikh Mbuub mi Moussa Mbuub mi ñoom ñu ngi jóge Touba ca taawu sëñ ma sëñ Dan mu sëñ Abdoulaye nga xam ni yónni na fi moom it ñaari nag muy sëñ Cheikh Abdou euh, moom it buñ demee ba kaddu yi président Cheikh Alassane ba nu tontu leen ba noppi ñoom it danañ leen jox ñu wax mhm. ñoom it incha allahu rabbi ñu sant leen gërëm leen ci teranga ji te yaakaar naa dem ba léegi Euh, lu fi xew rek lu fi ñëw itam euh, gis nga ko euh, teg nga ci sa bët kon wane na ni soxna si fi mu doon yëpp dem yëpp ñi mu doon jëflanteel lu mu leen lebaloon rek mën na ni tey jii li fi xew yaakaar naa ni Baye Jibi Diouf rek wax na ko sànq ngir dafa am loo xamante ni ñi fi teew tey Mamadou la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké loolu moo leen dal Serigne Mohamed Serigne Abdoul Ahad dafa soppanteek Serigne Ahmed Tidiane Sy di ko jëfal ay teraanga ba bis jot mu jël mbooloo mu bari ànd ak moom dem Touba yóbbaale ay teraanga sëriñ bi yendoo leen berndeel ñu fanaane leen ba mu yeewi ko mu ni ko damaa bëgg nga dugg ci sama wata bii mu yóbbu la Ndakaaru sëriñ Cheikh ni ko loolu de dinaa ci bég lool sëriñ Seex dugg ca oto ba sëriñ Abdourahmane Mbàkke ni sëfoor ba soo demee ba wàcce ko jébbal ko caabi yi te dugg at wata dellu siwaat te bu ko ko wax ndax Seex kat dama amul ci moom sago ngir cofeel gu mu am ci man keroog bi ñu sëfoor bi wàccee di ko tàllal loxo pour mu ñaanal ko bi mu ko ñaanalee ba pare dafa yëkkati caabi ji jox ko mu ne ko lii lu ko waral lii lu mu doon mu ne ko euh, sëriñ bi moo wax ni naa fi bàyyi oto bi ak caabi ji mu teg ca ni sama papa Abdou Lahad daal moo mën a fayantoo waaye baatu fayantoo boobu sëriñ Mohamed dinaa wax fii semaine bi yépp koo fi gis ku ne day ñëw di fayantoo si ak sa rakk ju baax ji hmm. waaye nag bi muy fayantoo rek ñu ko diiranteel dañuy ñu mën a jam ñoo xam ni bu nu diiree macha allah day jam le président Cheikh Alassane Sène bokk na ci ñooñee ñu xam ko bu baax ci xolam xam ko bu baax ci diineem xam ko bu baax ci njàmbaaram lépp lu mu def am na fu mu ko teg waaye boo xoolee njëmbat la seen maam rek la muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wormaal nag képp ku wormaal seen maam moo tax amul xeej ji amul seen ci jëf ju baax rawatina diine ji kon sëriñ Malick ci turu soxna si la ñuy waxee ak turu magam ju baax ji ci mbégte ak rakkam yi fi teew ci mbégte ak mboole seen ahlu kunti yu fi teew ak taalibe yi fi teew ñëpp ci mbégte la ñu jëloo jëlaat kàddu di ko tegaat ci sa loxo nga tegaat ko ci loxo le président Cheikh Alassane di ko ñaanal yàlla fa mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale te it rafet nañ ci moom njort ndax du duñu wax mukk ni xam nañu njëmbatam déedéet waaye am na lu ñu xam ci moom te xam-xam bi biñ koy xam yaakaar naa entre deux mille dix deux mille onze la woon loolu du tey waaye ku ko xam ku nekk lii nga ko xamee ci moom maa ngi ciy waxtaan ak sëñ mu du mi rek ni ko maa moom dañu am audience spéciale boo xamante ni dañu ko war a waxtaanee. li ko waral tamit mooy xam fi mu toll li ko waral tamit mooy xam ki mu doon ak ñi nga xamante ni yàlla boole na wallaahi alazim boole na leen ak moom ñu koy ñaanal yàlla ci barke Seydina Muhammad nga xam ni moo di dundam mooy lekkam moo di nelawam moo di toogaayam. mooy lépp lu mu am rek Seydina Mohamed man de ba ma ko xamee léegi ci loolu laa ko xam ak nag xaadimu yi nga xamante ni dañu fee nekkal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon yal na ko yàlla may wér yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla dolli suturaam. kii mu ngi leen di ziyaara ñu ngi kontaan ci seen ñëw fii ci dëkk bu tedd bi di Njaasaan te ki ko jiite tey tudd Cheikh Al Bekkay ibnu Cheikh Al di xalifatul am li tariqatil qadriya waaye ngeen dugg ci kër koo xam ni ku ko xam ak ku fi dugg bu la neexee nga ni dugg naa ci njaasaan yëpp bu la neexee nga ni dugg naa ci kunte yëpp bu la neexee nga ni dugg naa ci senegal yëpp bu la neexee nga ni dugg naa ci képp kër ku baax ku ne kooku mooy cheikh Seydil Hadj Maam bu wuldu Hadj Mouhammad wuldu cheikh Abou Mouhammad wuldu cheikh Albouna Ama dañu dend ak xalifaam nii di Serigne Mouhammad Kunta di taawam di sunu ndijaay waaye fa tabarakallahu wax leen rek balaa ndax dañ koy introduire ginnaaw bi ma leen nuyoo ak seen teewaay wax leen ni moom mi ngi fi ki ngeen fekk si di sunu yaay di sunu xarit di soxna astu bintu Cheikh Seydil Hadji dangeen ko fekk si nit mënta maye lu mu amul faaxidu cheyin la yuati nit ki li mu am rek moom lay maye soxna astu mbaax la am soxna astu ngor la am soxna astu tabe la am soxna astu tabe ci daraja la am kii di seen kilifa gis ngeen leen booba léegi ñu ngi toog ci kaw kay mooy imam Baba Ahmed fa tabarakallahu ñii toog ñëpp rakki sëriñ bi lañu kii toog jarbaatam la sama nijaay sëriñam am ngeen ne lay toog Cheikh Sidi Lamine mu ngi nii toog Cheikh bu Mouhamad mi ngi nii toog Omar Seck ngi nii toog di doomam soxna astu mi waral ngeen def lii ñoom ñëpp bi seen kilifa ñëwee dañ ni groupe ci suuf mhm. tabe ci xaalis yomb na mais tabe ci daraja moo yombul xam nga loolu lu mu jàngale la leen seen bay ba yare woon ci la ñu ne da ngeen ñëw ci kër góor gu tedd lu ngeen fi fekk ci mbaax rek doyul. di nuyu nag di nuyu. Cheikh Malick ne Cheikh Malick. ne du fàtte tur bi tey la ko doog a gis. mbaaxam mbaaxam nekk ambassadeur nekk alsan Alsane Cheikh Alsane moo tax moo tax du fàtte loolu moom Cheikh Alsane nag def na ñaari passage ñëw na fi keroog samedi defi teraanga te bàyyeegu ko daal ni bàyyeegu daal di ñëwaat daal ni bis bi dinaa ñëw bokk koog yéen am na ku fi nekkul am na ku fi nekkul. mu sëñ Moustapha Al Karim def na lu mel noonu. Cheikh Abdou def lu mel noonu. ne kon tur yi xam na leen. ak ñeneen ñi ñëw. dafa waxoon soxna su ni ko. ni ko wallaay dañ lay fay rek. dangaa jëmbat. dangaa jëmbat mu sax. mu sax. tàllalal sa loxo rek. allahu akbar kër gi xilaafa yàgg na fi. kër gi xilaafa daf yàgg. def na fi douze ans def na fi douze ans. xam nañu luy xilaafa xam nañu luy teraanga. wante wante. mësul am rupture am rupture. mais année bii ren. waaye année bii ren ñi ngi sant suñu borom. te yàlla te yàlla mi ngi ko jaale ci soxna sumi alhamdulilah lu bari wàcce na lu bari wàcce na ko. te dafa daan stressé. te daf daan stressé. su yëf yi ñëwee rek. su ñëwee rek su ma yëf yi ñëwee rek. contrôlé wu ko ma ni waaye nu muy wel may moom ku ragal échec la nee na njàngam su ma saan am not bu bon daf koy jooy ñetti fan ci wàllu diplôme daf daan xalaat li mu war a def événement ñëw na ki la fa ñëw bis yi am lu muy signifié am lu su su jaarul bu jaarul yoon ñu ni échec na ñu ni échec na waaye ñu ni bàyyam de def na yóbbaale na lépp dara desatu fa kenn du wax lu mel noonu fii <laughs> nee na moom kay da nga naan jëmm ja dem na ma nga barsaat waaye barke bi ak ñaan gi ak lépp mi ngi fi wallaay est-ce que nee na tey la gën am confiance ci boppam ndax ndax yaa fi sës nag. nee na ndax yaa fi sës nag. nee na boo mënta fecc sax di nga jàng fecc boo fi sësee. nee na ci phase boobu la toll nag wallaahi. li tubaab tuddee renaissance. li tubaab tuddee renaissance. mooy judduwaat mais mi ngi am de. loo gis dafay am des hauts et des bas. léegi nag mu ngi yëkkatiku ñu ngi seppant bi yéeg. yàlla dafa am fu mu ko jaarale soxna Astou nee na bu ko cofoon bañ ko cee boole du wax dara du ko wax dara nee na kon ca néegam bee lay ne ku bëgg a noppalu la mais mais lu mu def mais nee na lu mu def danaan ana sama mag woo ko téléphone ni ko lii laa bëgg a def teraanga yi bëgg na bu ci mu teg ci bëtam bi ma rombee di ñëw bi mu rombee di ñëw mais kontaan na de xool naa lim bi mais xool na lim bi de waaw ña doon wàcce nag yi doon wàcce nag yi daf leen di wax yéen ay professionnel daf leen wax yéen ay professionnel ngeen nag rek la ragal nag rek la ragal mbëkku nag mbëkku nag <laughs> du ko fekkee nee du ko fekkee mais ni ñu ko doon jàppe di ko jatan di leen indi ci biir nit ba yeew leen te teraanga nag te teraanga nag gàmmu gàmmu mooy nag mooy nag soo indee xar soo indee xar ak nu mu toll ah, dañ naan xar ma la indi te xar du gàmmu de nee na kamataan dafa doon gàmmu di di di di dajale affaire yi di dajale mbir am ko jigéen ku ni ko boole ci yàpp nag de ndax day tax séddale bi gën a neex ganaar baax na lool soo indee jëmmi nag indi ko nag yi nag ah, macha allah nee na Malick kontaan nañ nee na Moussa kontaan nee nga wax sëñ ab ko kontaan nañ Moustapha al Karim ne sëñ Moustapha al Karim santal leen ñu ko ne ngeen santal ñu ko tey Ahmed Touré ne Imam Ahmed Touré nee na ngeen ngeen nuyul ñu ko lii nag dama porte parole rek la nee rek la maa ngi ànd ak sama rak mu ngi ànd ak rakkam yi nee na Baye Sidé ngi nii toog di sama di rakkam di doomu soxna Ami Mbacké bintu Cheikh Modou Moustapha fii mooy Touba mooy Touba bu Ndiassane amuñu ci amuñu ci benn complexe. nii la demee nii la demee. alaaji mambu alaaji mambu dafa am lu mu dund ci dëggante boobu. dundal ko it. bay siidi mu ni bay siidi. macha allah macha allah. ci man rek topp ci moom rek nee na amu da way wu ma wax ne moo daan yor baayam wallahi bi xibaar bi ñëwee dama ni bay siidi laa téléphoné doomam la moo ko daa téye alaaji mambu mamadu wallahi neen te billaay noonu la demee nee na bi demee woon neneen. mu ni un. mais ci loxom la doge. nee na sëriñ bi Cheikh Sid Lamine sa mag nee na mu gi lay sant. jërëjëf loo rek la bëggoon wax. soxna Astou nag. nee du ko sant. mais nee da koy waaye nee da koy ñaanal. nee résultat ya ngi ñëw de. ta dana dana dana dekk. dana dekk dana dana toog. dana toog am naa ci yaakaar am na ci yaakaar. ndax ndax lu yàgg la lu yàgg la processus la processus la su jotee. waaye su jotee dañ naan jot na dañ naan jot na. jërëjëf jërëjëf Kounta maa ngi répété wu rek. mais mu ngi répété wu loolu yitte bi la. yitte bi la kontaan na kontaan na macha allah macha allah. ñu ñu tàllal loxo ñu tàllal loxo yi ñaan yiwi leen bu ngeen demee rek kilifa ya ngeen jotali lu mel noonu. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يوم بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه ولا يؤود حفظهما وهو علي ولا يؤود حفظهما وهو علي ولا يؤود حفظهما وهو علي اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima yàlla jàll def allahumma amin